gan gi Penda Seck Diouf mooy présidente plateforme de veille des femmes la sécurité et la paix ëttu jàmm ñu ngi lay nuyu. waaw ah, maa ngi leen di fay. ñu am mbégte dalal la ci matinalu réew mi FM tey. ngir mhm. waxtaanee tolluwaay réew mi surtout fitna gi tàmbalee jolli ci làngu politique bi en tant que ay jigéen yu tàmm di dox tànki jàmm di ci yëngu itam naka ngeen di dundee lii xew fan yi ah di ko dundee rek ni ko ñëpp di dundee ku nekk gis nga li nga xam ne mi ngi xew euh, Euh, te lépp nag euh, ay élection dem ci ay élection moo ko moo ko waral hmm. fi mu ne nii na nga xamante ni si xam nañu datu élection bi muy ñëw deux mil vingt trois le vingt cinq février deux mille vingt quatre deux mille vingt quatre hmm. tax ba nga xamante ni si ñun ci ñu nekk jeexi jaaxa bu kenn xamul ah te euh, loolu ñëwagul sax mu nekk nag lu nga xam ni ëllëg na tëgg mm, mm, kii nañu torop gis nga rek ni nga xamante ni si moom lañ fi ay violence ay lu nekk jëm rek ci lu nga xamante ni si te lépp waralu ko lu dul ñu ne ay élection ak yooyu mm. ak euh, acteur politique yi tey rek ah, jël jël sax euh, booy xool le pays en otage ci lan moo di ne ay élection dafay am loolu moom euh, metti na trop violence yi ñu koy vivre di ko gis mu nekk ay yu ñàkk kersa mu nekk ay violence verbale ah ay viol dem sax ba ci ay violence physique lu nekk ñu di koy gis ci lu nga xam ni ñëwagul sax far mm-hmm. loolu mooy liggéey sax talatuñ ko talatuñu dara du nekk ci ay élection ak li nga xam ne élection yi nga xam ni lu ci bëri ñëwagul étape yu bëri la fi mu ne nii ci la ñu jëm avant loolu yu ñëw Mhm. en tout cas li nga xam ne si moom moo xew li nga xam ne moom la ñuy gis moom ci lendemain politique bi metti na trop ba ci kanam yàlla te metti na aussi na ci dëkk bi. Mhm. lan moo ci taxawaayu ëttu jàmm bi nga jiite eh, yan jéego la ci jigéen ñi tàmbalee def ak eh, lu ngeen ci booloo xalaat. ëttu jàmm de moom xam ngeen ko moom eh, ràññee ngeen ko bu baax muy plateforme boobu nga xamante ni si. ay organisation de la société ñoo ci nekk mm-hmm. plus de cinquante organisation féminines yu nga xamante ni si ñun bu ñu taxawee ay maay ma ni dinañ jóg di woote jàmm di woote calme di woote sérénité di woote nag ay euh, élection yu nga xamante ni si dafay transparente démocratique apaisé ñun loolu lañ la euh, la ñuy wootee loolu la ñu nga xamante ni si moom la ñuy wax acteur politique yi nga xamante ni si ñoo ciy nekk ak ñi nga xam ne ñooy nekk ci élection eh, mbirum élection yi mais ñu def ndànk te xamante ni si dëkk bi ay élection rek nag mm-hmm. liggéey bi nekk fi lu nekk nekk fi kenn talul dara lu dul naan ay élection yu nga xamante ni xamaguñu sax te nag ay jiixi parce que xamaguñu sax élection yi demee mm-hmm. jiixi jaaxa yooyu yëpp ak euh, fa ñu jëm ah, li ñuy wan daal moo di ne fa ñu jëm moom mm, ndox amu fa mm-hmm. ndaxte nekk na lu nga xamante ni si dëkk baa ngi nii yëngu bay bëgg a dee ko wëlbatiku waxtaan élection mm-hmm. amul dara lu ñuy waxtaane lu dul élection ak kuy def li mais bu fekkonte ne ci waxtaan bi sax lañ ko def te yemale ko ci wante ay violence dara ñëwagul dara xewagul. Hmm. ak fii réew mi jëm yëpp. en tout cas ku nga xamante ne si gisuma nag lu ko fi jar. Hmm. ku gis euh, dëkk yi nga xamante ni si ñoom ñëpp dañoo taxaw ba watatu ndax lan ndax euh, ay euh, élection yu nga xamante ni sekk bëri na tension jeexi jaaxaak lu kenn xamul. Eh, ku gis loolu de war ngaa def attention bu baax a baax a baax te nag kenn amul nag droit sax nag eh, ci suñu pays ci suñu dëkk bii nag ci kii ndax ay eh, élection moo tax ñu ngi laaj daal ak di wax ne ñëpp nag ñu ngi laajte daal ay calme hmm. ah, ba pare nag di wax acteur politiques yi aussi ñu def ndànk te ñu ngi woote aussi nag dialogue ba nga xamante ni si hmm. ñu am dinañu teg ay kii ci yoon booy xool nag eh, lii nga xamante ni ñoo ci nekk tax ñu sax ci élection yi. Mm-hmm. dafay mën ni da ngay dem sax ñuy tudd nit ak nit. mën mm-hmm. ni en fin de compte euh, question de lu kenn xamul la ñu am. Mm-hmm. plutôt que eh, sax nag ay élection en tout cas ñu ngi am daal ñu ngi laaj daal comme toujours ñun. ay élections apaisées dinañ def nag ñun ay sensibilisation mhm. dinañu woy les régulateurs sociaux ñu dimbali daal ba nga xam ni dëkk bi daal bu ko kenn teg ci kaw ndax la ndax ay élections mhm. te fi mu ne nag dañ ci am ci tànge trop am ci ak jaaxle trop nag bu baax mhm. alors ni nga ko waxee des na étape yu bari bokk na ci mbiram fichier bi mbiram parrainage bi yooyu yëpp tam mën a indi fitna ndax yéen ëttu jàmm pour gàttandu loolu yëpp am na lu ngeen a xalaat a def bala ñu cay àgg gàttandu bi gàttandu bi de moo di fexe ba nga xam ni transparence am ba nga xamante ni si ku ku war a parti participer ci loolu parce que citoyen nga mm. nga participer ci ku nga xamante ni si euh, taxaw nga war a am par de responsabilité bi nga xamante ni si moom nga ci am nga doxal ko ba mu mat sëkk comme ma la ko waxee léegi rek mm. ay étapes yu bëri fi mu ne nii ñun dañ cee xaaju dem sax ñaata ñaata moo ci des presque at euh, ëpp na fukki weer mm. waaye tax tax talatuñu dara ndax élection fi ne kenn talatul dara ndax euh, ay élection yi nga xam ne sax ñëwagul mm. état yi nga xam ne nag mooñ ci yóbbu nag moom la ñuy surveiller nag de très près ñu fexe ba nga xamante ne si mu jaar ci leer jaar ci kii ba nga xamante ne si du am euh, kenn du ni nag xam nga élection moom dafa ànd ak ay tension yooyu mais hmm. wata nekk nag aussi méchant ba nga xamante ni si ëllëg duñu xam ne ñuy def suñ dëkk bi ñu naan lan la ñu hmm. naan ay ci élection lay jóge hmm. dëkk yu bëri nag yi nga xam ni sax ñoo wër nag boo gisee nga xam ni ba léegi jóg sax tal la neen sax nekkatuñu xam nga lu leen koy yóbbee. Hmm. ay élection yu nga xam ci ay élection la ñuy jógee. yooyu tension de yal nañ ci yàlla musal daal. Hmm, hmm. ba nga xam ñun nag ñun dinañ def ay sensibilisation la ñuy def ak woote pour que vraiment ñu teg lépp euh, ci transparence ci. Euh, yombal ko ba nga xamante ni si dafay nekk un acte tout simplement euh, citoyen nga xam ni moom la ñuy teg. Ah, Eh, def am eh, ay élection yu nga xam ne dina jaar ci jàmm mm-hmm. ku nekk xëy liggéey yi nekk ci jàmm mm-hmm. ah. alors laaj bi ma lay bëgg laaj nag jubluwaay bi du jël loola position ci benn mbir parce que xam nañ ne ëttu jàmm dañu nekk à équidistance euh, du ci parti politique yëpp ak acteur yi mais jamono yële société civile bi dañ leen interpellé parti bu bokk ci opposition bi euh, di PASTEF mu ni na société civile bi wax am taxawaay bi war euh, ci ni ñuy jàppee ay nitam ak li ñu jàppee ñoom bunduxataal ak xoqatal est-ce que woote boobu yéen da ngeen ci gis seen bopp ndax dégg ngeen ko ak itam am na jéego yu ngeen ci nar a def parce que loolu itam bokk na ci liy indi fitna ñoom waa Pastef la ñu jàpp nañ ñu ngi leen koy teg te jaaduwul ba tax ñu woo ci société civile bi. xam nga loolu ñuy woote noonu. Hmm. Euh, ak di ko wax noonu. Hmm. mais moo ko tax moo di ne tension yi nga xam ne mi ngi taxaw rek. Hmm. te lépp nag jëm ci. lan nag boo koy seet ma di ko natt élection doo nga tax ñool ñu nga xamante ni sax noo nekk après effectivement on dénonce xam nga yooyu moom dañu naan ni lii moom nañu li li nga xam ni si moom la ñuy wax moo di ne nit da ngay bëgg lu nga xamante ni si ay di ñaan dëkk bi nekk ci calme nekk ci kii ba nga xamante ni doo ni man kat maa ngay jàpp nit wala maa ngay dugal nit ci jeexe hmm. jaaxa wala ñoo ngi jël eh, dëkk bi di ko dugal ci jeexe jaaxa ndax rek ay élection yu war a ñëw hmm. ah yi nga xamante ni si ñëwagul sax moo tax eh, ñu ne élection ñun transparence lañ ci bëgg justice nga boo hmm. gisee ay tension di ci am ay conflits yu nga xam ne fort maa ngi lay jox ay exemple ay dëkk yu nga xamante ni si ci élection ba léegi hmm. élection yëpp passé na lu war a mat ay fukki at ci ginnaaw hmm. mais gis nga dëkk yooyu ba tey ñu ngi ci ay jeexa jaaxa ak ak ak lu metti rek ndax ay élection yu jaarul yoon rek mm. ak lu nga xamante ni si fexe nañu ba yëngal ko ca mm, te waru ci woon a nekk mm. élection donc ah, man fii laa ki su ëllëgee ma teg élire c'est le peuple qui élit ah. du ay nit ñoo war a ñëw naan ñu ngay kii kenn dëkk bii ñun eh, ñu ñu ñu ñu le mooy ñëw di élire ak yooyu ñoo tax nag ñu ne nag calme da cee war a am ak kii te gis nga xamoo li ci gën a métti sax ñun euh, li tax ñu tiit moo di étape yi nga xamante ni mu mm-hmm. ngi ci suñu kanam mm-hmm. te élection sax jëwagul ci ñun lan la ñuy dox ba yegg ñun ci loolu ah. moo tax nag euh, effectivement ñu ni euh, bëgg nañu daal ay non seulement ñu ne élection yi lépp luy indi tension daal ñu teg ko ci suuf mm-hmm. dafay nekk aussi loo gis nag justice moom moo ko lal. Mm-hmm. maanaam jaar ci lu nga xamante ni juste na équitable. Mm-hmm. équitable mm-hmm. ba dem ci euh, élection yi jàmm ak salaam. alors ñu jëm ci euh, élection euh, deux mille vingt quatre euh, ngeen tàmm aussi di woote jaloog di woote waxtaan est-ce que bi yoon yéen a ngi xalaat jokkoo ak ñaari pàcc yi gën a fës en tout cas ci tension politique bi tey mooy APR ak PASTEF est-ce que yéen a ngi xalaat dajale wala dox tànki jàmm ci diggante ñaari parti yooyu nga xam ne tey conflit bi donte yeggaguñu ci élection mais seen diggante la. ñoom dafa lu nekk sax seen diggante xam nga loolu sax mooy kii lu tax mu war a nekk seen diggante rek am na ñeneen ñu nga xamante ni si. Mm. xaj na bëgg na ñoo nekk mm. ay euh, ci ci la ñu bokk. Mm-hmm. moo tax waruñu jël sax ñooñ sax hypothéqué leen. Mm-hmm. ba jël rek daal di ni kii. yemale yëf si seen diggante ñoom ñaar mm-hmm. loolu mooy kii bi. ñun daal li nga xam ne si ñun moo ñoo ñoo ngi koy def ñun moo di ne à chaque fois bu nga xam ne ñu ngi ndaxte. étudiant moom depuis 2012 mi ngi ci ay élection mhm. euh, saa yu élection jógee dina rencontrer acteurs politiques yi dina rencontrer ñi nga xamante ne si ñoo nekk ci kii bi dina rencontre administration bi dina rencontrer ñëpp ñu nga xamante ni si ay kii lañu pour ni leen ni attention ñun kat euh, bëgg nañu ay élection yu calme yu apaisé te nag teg leen ko nii ak yooyu jaloog nag ak waxtaan mënu cee bañ a ñàkk moom mm. il faut que moom euh, ñuy waxtaan il faut que aussi ñu leen nii il faut ngeen teg dialogue ak yooyu mm. yëf yi dem na ba nga xamante ni si dootu ay problème de euh, sax nag ñun dañuy mujj sax fàtte na nga xam ne noonu dañu war a amee ay élection yu apaisé ak yu mm. calme ak yu transparente mais dañuy mujj sax di tudd nit loolu mooy lan waaw bu ëllëgee bu ci ñeneen ñëwee kii ci nag e, dugg ci nag dañuy daal tudd nit ak nit ak xam affaire bi warut a nekk problème de personne. Mhm. mais problème de citoyenneté problème d'élection la. et mhm. que e, nañ ko jaarale ci yoon. Mhm. loolu nag ñun dañ ci wax ñun dañu ci wax ci étape yi nga xam ne sax ci la ñu war a jëm. te ku nekk xam na ne euh, war nañ cee def attention bu baax a baax mm. ba pare ñuy liggéey nag élection du élection et il ne faut pas que les acteurs politiques nous prennent en otage mm. te kenn amul tamit droit teg euh, dugal nag euh, pays bi nag ci kaw mm. tout simplement parce que yaa ngi jëm ci ay élection jërëjëf Penda Seck Diouf ñu ngi lay gërëm bu baax a baax di leen ñaanal dam ci seen tànki jàmm yi ngeen nar a dox ndax jàmm moom ci la lépp xaj fàttali ni yow yaa jiite plateforme de veille des femmes pour la sécurité et la paix etu jàmm jërëjëf jërëjëf jàmm